loo sa néeg jël sa néeg nekk foofu commencé au moins am gel commencé xalaat ah kan laay coppal booy bu tolloog man coppal ko mais développé sa xel civilisation te civilisation mooy yokk a valeur nit te def sa mbaam kon wuy wére doomu aadama man dama wax dama lay wax saw bi laa bëgg nga bàyyi ko yaa ko tey tey moo ko di tey moo ko di loolu laa la bëgg wax ni man dama lay wax la mooy waral li saw bi billaahi barke Seydina Muhammad dara du ci dëgg billaahi barke sëñ Muudu ci wax dara amul billaahi kiki kiki kiki man ku ma ku ma la ñëw fii mel dama bi tamit nga bàyyi ko mu ngi metti bos boo wàññi sa dox bi naar ray sa ndey yaa ngi est-ce que yaa ngi may dégg. kan ngay saaga man yow laay saaga déggal lu mu lay wax rek. ay doxantu nii rek. loolu laa la mbaa li jàmm la loo gis un deux trois rek ngay dox di krinki ma la yaa moom dëkk bi sa moroom nekkul fii de rek la sa bopp. damay doxi sama soxla su ma amee soxla dama koy doxi ji ba mu mat sëkk. lu ma lay wax ngay dox doxlu te bu la tëlalee noonu nag nga jënd télé may toog di seetaan. yow Samba yow na ma ko de. Samba man. Samba man. yow man Samba dama kaa wax dara ci wax de te nopp amul kubéer na sama kër ceeb bi nag mën na ko ñaanee ma nag mën na jël ceeb bi toog war sama jëm moo tax may naa dellu si sa ceeb damaa foog ne man diggante loolu war na ci mën a xaj la ma ñaan soo ñàkkoon ñëw di ma ñaan man dinaa la ko jox kenn du ma dégg. xam naa ni danga maa bañ waaye booy wax waxal dëgg booy demee ba may fenal sama booy bi. nga wax dëgg waxal dëgg. yenn yi dafa mel leneen la pourtant li ma la xamal waxuma ko maa ngi koy muñ. di ko muñ saa su ne. li su ma ko waxee dina mel ni xamaloo ma li nga ma xamal yëpp wax wax nga ba wax loo ma xamalul. wax nga ba xam wax loo ma xamalul yow di nga desal yow. yow di nga desal yow yow xanaa man xaw ma la yow di nga desal te taa douze bi man xamal naa la ci douze bi. te dama koy li ma douze bi xamal naa nag te te musuma génn fii ci koñ bi wax ni ah ki ma dëkkal dey faatu buy sangu man yow lay wax yow lay waxal ah. lan ma lay woo doomu Fall lan la xanaa doo sama gëlu papa rek. kay ma wax la. ah gëlu nga jël ko nga teg ko suuf dégg nga. pourquoi. sa papa jaar na nii ma jaar nii. waaw fu mu moom ku ak yow foo jëm. ma ni yow man sa papa nekkatuñ laa la wax. nekkatoo leen. déedéet. ah wala. eh loolu sa yoon nekku loolu loolu kañ la. xel sa li naan. nee ko fee li ni dëgg la de. mais li nga wax li billahi wallahi man maa la ko gën a bëgg mais des fois xam nga rek sama xol bi moo ko at moom soo gisee mère bi di def yenn yi wallahi billahi laa lay waatal ni du sama sako quoi mais suma sañoon tey ma takk tubay xoolal di dóor waar di indi mère bi di jox meer bi di lekk moom sama rakk ji wër na yàlla billahi du caaxaan. maa la bëgg te même su ma demee même suñu fekkee dem douze nga wax demal douze da ngay jël sakkal la. dama lay laaj ba xam man jëlu naa la ko nanguloo ko sax. kon léegi bësal foofu sa baaraam. maa ngi dem maa ngi ñëwaat. su ma ko fekkee mooy sama diggante yow yam na fi. day dem loolu moom dugal ko sa kalaat bi dégg nga. am naa pour suñu premier guddi. boobaa xam nga ngay nii taxawal foofu bul dama lay gunge wóorul nga dem. taxawal foofu bul nga dem nga dem wóorul. dëkk bi dafa bëri ay jom ko ñaw ñëpp koo naam. li nga bëgg jàpp li nga bëgg jàpp xam naa doo ko jàpp de pour soobee bàyyi sama tubaab bàyyi boo jàppee ma jàpp boo jàppee ma jàpp. dama lay gaañaa ah. naat. fay. waaye yow nga ñam allo ñam nga wala ñamuloo. yow ñamoo ñam nga wala ñamuloo. yow ñamoo loo gis. ngay jaay sa dënnu loo gis laa wax sa dënnu bu woon ne gi loo gis laa wax. bon bay bëgg a loo gis. ñàkk fay dugal ku de ñam. yow doo dugal dara. mani ñam nga wala ñam. yow tus. loo gis laa wax tus nga doo dugal. mani loo gis. yow da ngaa dugal bay génne. loo mu yow. ah dama daa ko ma de foofu daa ko ma de.

keroog bi sa jabar ñëwee gis naa li nga doon def ngay ngay fëtti fëtteeg ñu ma xamul nga mel ni bëy noonu. ay waay ay waay xoolal wuy ma wuy ma wax naa ko ci yàlla ne bi nga ah, ba nga xamee ni jabar day nawle boobu nga waroon a toog sa kër. maanaam dañu di violé waaw. reykat nit sax def na loolu. ay ay sa papa wax loolu. waaw ndaw ñu dagg baaraam si la bokk dégg naa loolu. sa papa laa wax fenul te sax maa waat billaahi wala su ma dóoraatee dinaa rey ndeyam. nokku la yow pour ma nokku la pour deux la. yaa ngi dégg kii dara du nga xulul def. xoolal damay jàmm sa xol. ah xoolal xoolal damay jàmm sa xol laa. man nga ni sa tot loolu. man nga ni sa tot loolu. man nga ni sa tot loolu. man nga ni sa tot loolu. ñett du bëri ñaar ñoo mën kenn.